Vendredi 31 janvier 2020, le dernier numéro TRFM Matin de ce mois de janvier. Bon réveil, bonne journée. Bonjour à tous, il est 6h les infos. Info, il est présenté par Georges Détier Bonjour Georges. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Du nouveau dans le dossier du meurtre de la dame Ndioba Sek, 4 quatre personnes ont été arrêtées. Les sources précisent que les individus euh, entre les mains des enquêteurs ont été identifiés comme des ex-petits amis de la, de, la victime, Ndongoka. Il aura fallu juste trois jours après le meurtre de Ndjoba Sek pour que l'enquête donne ses premiers résultats. La police de Guinaouraï vient de procéder aux premières arrestations dans cette affaire. Les limiers sont parvenus à mettre la main sur quatre personnes. Les quatre jeunes hommes interpellés sont tous considérés comme des ex-petits amis de la défunte. Selon notre source, Ndjoba Sek a passé ses dernières communications téléphoniques avant sa mort avec les quatre individus arrêtés. Ndjoba Sek est retrouvé morte, baignant dans son sang lundi dernier à la réception sur la route nationale. La jeune fille qui était âgée d'une vingtaine d'années a reçu 64 coups de couteau. Depuis ce jour, la police était à la recherche des auteurs de ce crime. Nonga sur mer, Radio Futur Média. Lancement du rapport euh, pays du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Des experts ont demandé à l'État du Sénégal de résoudre euh, les questions sur, euh, liées à la situation des talibés, l'emploi des jeunes, entre autres. Le chef de l'État Macky Sall s'est engagé à appliquer les recommandations qui seront issues des consultations menées dans 14 régions du Sénégal. La marche du collectif Nyon Lank, marche prévue cet après-midi à partir de 15h une manifestation pour exiger la libération de Guy Marius Sagna en prison et euh, la baisse des tarifs de l'électricité. L'actualité hors du Sénégal, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété jeudi que le coronavirus est une urgence de portée internationale. L'épidémie a fait plus de 100 morts en Chine, Babacar. Georges pour le Flash Info sur Matin. RFM Matin 6 heures tegal na yett minutes bisimila mbokk yi ci xabaar yi ci tënk ci wolof El Hadj Assane Gueye lañ ci àndal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ziar ñëpp ñi ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak wàllu yoon ak enquête bi nga xamante ne ubbiku na boobaak léegi ñu faate soxna si di Ndioba Seck am na ci ñeent nag ñoo xamante ni ci enquête bi jamono yi ñii di enquête kat yi dal nañ leen teg loxo leeral li ndongo kaa. ñetti fan gannaaw nag bi nu faatee Njóoba Sekk enquête bi nag joxe gum résultat am yu daal dee njëkk police bu ginnaaw raay daal dee am ñum ci tegagum loxo muy ñeent xale yu góor ñoom ñeent ñëpp nag ñu jàpp ni dañoo séqoon labatante ak ndem si yàlla si bu nu sukkandikoo ci sunu source mu nuy xamal ni Njóoba Sekk ñi mu mujjee waxal téléphone moo di ñeent xale yu góor yi nga xamante ni ñoom la police yi ginnaaw raay daal dee teg loxo Njóoba Sekk nag ñu fekk ko mu daal dee faatu deret ju bëri di wal moom ci arrêt SIPS fi yamaku national bi niki altine gi ñu wees moom xale bu jigéen bi ay atam tollu won ci ñaar fukk ak lu tek ñu daal di koy jamati lu tollok juroom benn fukk ak ñent ci ay paaka booba ak léegi police bu ginnaaw raay nekk nag di wër ñi nga xamanteni ni ñoo def jëf ju ñaaw ju ni mel ndongo radio futur media ndongo jërëjëf rapport bi nga xamanteni nak moo jëm ci jumtukaay ñu tëral ci afrique ngir ak natt ñeel euh, aw yorin euh, muy kon euh, li nga xamanteni mooy mécanisme africain d'évaluation par les pairs experts yi seq ndaje moomee ubbiku ci ndakaar loolu bëgg ci nguur sénégal mu wut ci

wàllug xibaar ba tey ca ndar ñi nga xamante ni euh, ñooy l'école yaak ay jafe-jafe ndax euh, ci lu yees ñaari at rek juróomi l'école tëj nañ ko foofe ndax màggete màggataay yàqute ginnaaw bi nga xamante ni euh, géej gaa ngay nangu foofe waax yaak dëkkiwaay waaye it doon na lu dugal loraange ak cooxa cooxe ci njàng mi foofe waral yëglug ñenn ci acteurs yi ak way jur bu nu sañoon daal saafara am ca xibaar yi bokk na ci dox bu ñoo lànk di amal tey ji ci àjjuma ji ci ndakaaru Euh, la ñuy ñaawlu mooy yokkute njëgum courant gi ak it téye gi nu téye ci kaso bi Guy Marius euh, bu 15 heures am nañ ci ndigalu préfet bu Ndakaaru wàllu wér-gu-yaram la ñuy jeexale ak àddina ak tolluwaay li nga xamante mooy jàngoro coronavirus ci Chine ak i lorangeem OMS mbootaay gi te wàllu wér-gu-yaram ci addina gis nag ne jóg jot na moo waral mu jógloo àddina yëpp ndax jàpp na ni urgence internationale la jàngoro joojee Babacar. jërëjëf El Hadj Assane ci tënkum xabaar